non, non, là, toi, non. Tu ban là. la wa. là. ma yau Sheikh Umar wiya ka chère! men c'est ba yayi. Bon, zo c'est Madame Dieu, bonjour. Bonjour. <laughs> Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui euh, Pourquoi venir ici alors qu'on avait entendu beaucoup de rumeurs concernant vos relations avec la famille on ne pourra jamais empêcher les gens de parler. Quoi. On n'a pas de problème avec la famille, il n'y a, pas... a pas de problème. On vient quand on peut, on se voit quand on peut, mais euh, Mhm. On n'a pas de problème. On pense toujours les uns aux autres. Mhm. Vous résidez actuellement au Sénégal ou bien vous êtes Oui, à Salim. À Salim. D'accord. Vous êtes venu passer la journée aujourd'hui en famille Oui, et puis aller au cimetière. Ah, au cimetière, on vient voir après toute la famille. Mhm. C'est les habitudes. C'est bien. <laughs> va. qu'est-ce que ça fait de venir en famille Ça fait du bien. Ah oui,

saa yu ñëwee fii daal dem armeel ya ñëw fii ci kër gi waaw fii c'est la famille maison familiale man maa fi nekk moom bu ñëwee fii wala boo jógee fii dem na armeel après mu dem waaw dana gis famille bi donc euh, la. mu yëndu waaw loolu la de loolu rek de. loolu problème. <laughs> alors soxna si yan kàddu nga ciy sànni. waaw kàddu kontaante rek macha allah. laa mhm. ciy sànni. Mhm. parce que lii moom lu rafet la lu neex la. Mhm. parce que bu bëggee naa àdduna mais dafa mel ni génnul àdduna parce que bu ñëwee indi famille moom. ñu nekk ak famille buuba dafa mel ni relation bi mi ngi dox ba tey macha allah. yàlla nañu ko yàlla sàmmal rek buuba tamit yàlla. Euh, taxawu njabotam sam len ar len buñu yeggalé sen ndaw sen sago yalla bu len dara gàllankoor ci barke entou bi sallallahu alayhi wa sallam man loolu laa dina ñaan kon li ñuy wax yef nek entre yeen ak jabar bi relation yi neexul kon lolu amul lo <laughs> relation yi mom li ya gissal sa bop mom wax deug yalla ya gissal sa bopp mhm. mhm. <laughs> waaw